xel ci combat am na solo léegi du ma jeexalagu ci moom de grand salle parce que li mm. tax mooy. Mm. Euh, lii nii am. Mm-hmm. nga dem ay nit wala boog ay nit yi Balla. Mhm. Euh, fexe ba nga dugg ci combat bi. Mhm. yàlla dogal na Balla am na ndam ñu ngi koy féliciter di mhm. encourager Tapha encore une fois. sëñ bi ku ne ku ne xam la ak Modou Lo. parce la ko ni ci combat bi ak ni nga ci doxee. sa diggante ak Modou léegi nag. du problème la la demee ba lañ déggoo di waxtaan naa moom. Modou Lo maa ngi Modou. ba bët sa tëdd àll tey xam na ne man Serigne Cissé mu sëñ Babacar. waaw lu may dugg day doon faraata jëfandikoo farata nag bu farata jeexee génn ci hmm. donte ne Balla Balla dama ko wax ñaari mbir sàlloo dama ne ko. Hmm, hmm. jokkoo nañ téléphone man ak moom ñu wax ci combat bi. ma ne ko ñaar moo la ko may bi ci njëkk yow la yaa ko jëf. digganteem ak fils de Balla ku ne xamoon na la ci ne. waaw ngénteeg liiru jaan. Mhm. loolu moom fekkee naa ko. fekkee nga ko waaw. ma xëcc Balla wax ak moom Balla may ma njekk. Mhm. ma dem jëli ji fiis de Balla indi wax ak moom yëf yee rafet te bu ko neexoon ñàkkee ma kersa. Mhm. dëgg la wala du dëgg. dëgg la ma ne ko ñaareel ba muy liiru jaan ni mel ci man. ñetteel ba dégg daaj ni mel ci man. kon yow man lii laa soxla woon naa ko am bu ma ko amee nga daan léegi wax ja Modou Lo nag leneen la. yaag Modou. maag Modou leneen la te Modou nag yow fa arbitre ba te digg làmb ja. man yóbbu naa mbër mbër ma daan ca avant ñuy génn géew ba ca biir géew ba maye leen Modou na engagé comme engagé ma daan. Hmm? làmb moom guddi yi Babacar. Hmm. moo xam ma wax la moo xam ma ñàkk laa wax. <laughs> koo ma gis ma bootu ci am jàppal ne bu ndab daa moo ko yóbbu. ak mbër mu mën a doon. ak mbër mu mën a doon. Serigne Cissé affiché wu na nga séen ma ci ginnaaw mbër. waaw jàppal ne mbër moom bu ñuy yëkkati loxo danañ yëkkati loxoom. boo ma gisul nag ci débat ya gisu la ma ma dem ci stade gisu ma ci épon presse gisoo ma ci dara xamal na sëñ Cissé bokkul. newul ca loola nekkul ca loola. waaye affiché wu na sën Cissé nga ne le mu nga ne lee kaala ga xamal ne lay am lay am moom dana am insha allah. Hmm? barke yonent bi gis nga bis man du ma ko cof. bis lim laaj mboole mi détail yi làmbu laaj. tama xam ko dama koy jëfandikoo gàcc baaxu ci gor. Hmm. gis nga am folo waaye ku ci daanu am gàcce moo tax bu ma ci duggee dama cee dugg ak xool lépp loo xam ne xam naa ko te mu man maa may ndax man damay jëfandikoo loolu toog danga koy jëfandikoo dama koy jëfandikoo toog làmb nag dama koy yàgg wax fii dafa bëri ay yi détails yi nag ku ko ci ba hmm. dañ duñ duñ dëj di la lëng di la génne rawatina fii di Sénégal kon ñun sunu affaire yi ñu am yooyu nga mën a jëfandikoo li nga bëgg nga am ko. Mm. mais yow kon coach bi li mu wax sànq Cheikh Diaw ne làmb du sport leneen la te man ma ne ko déet kon yow da ngay dëgg ne làmb du sport. daa mel kan ko wax kii li mu waxee dëgg. na ko léegi làmb bu fekkoon ne dem di léewtoo kottu la. dana bëri ñoo xam ne danañ am ndam dana bëri ñoo xam ne duñ am ndam. làmb dafa am réalité réalité yi mooy leen mooy diggante xànc ak fas ak sëf. doy yooyu làmb ji. <laughs> wax naa junj naa la ko bërki démb dafa may leer ne Tapha Tine leer loxoom fu mu dóor day teppeeku ma fexe ba loxo ba du dóor. ah danaa leeroon ne bu waa <laughs> waa léegi Modou Lo ak Tapha Tine coow li bari na fi mu ne nii gaa yaa ngi naan coow li coow bi roi li bari na sëñ bi. man daal. waaw. démb maa ngi koy wax ci sama benn sortie. waaw. gis nga ni xam-xam. da jàng mu yokk ngay gën a xam ay pexe. dégg ngeen ma man ba tàyyi ci samay waxtaan ma ne leen man xaw ma doole xaw ma ay physique man pexe laa xam man sañ siise yow pexe ngay doxe man pexe laa xam sàlloo mii xam naa ne bëree moom bu dee bëree rek nga ko jaakaar doo ko daan waaye pexe yu daan sàlloo moom danaa fexe ba xam ko daan ko ci man xaw ma ay physique ay ku ay ay cardiologue ba ubbeeku naag yooyu xaw ma ko man <laughs> man daal pexe laa xam yuy daan bëri pexe laa xam wa mais tay hmm. est-ce que yéen da ngay manam hmm. troisième combat Modou ak ak Balla soo amoon exemple noy def. wa xam nga dama deg Modou wax ne. rendi ren di ne. barki dembu wax sama ben plateau mané man dama nambu. mang njaay njaay ci géew dama ko nambu. ah dara jëy mustafa may wax ak yow. da nga bëgg jakarlo Fadam la so barki dembu mané man dama nam ak ñom ci géew. Hmm. jëflante ak ñom gis nga babakar waaw mbir dara xew ci waaw ñuy sant ñoo xam ne duñ ca lenn. sëñ Cissé mbaa loolu wóor na yàgg njaay njaay yi ngeen jàkkaarloo. nañ ko tëgg ci réew mi te dee bàññi fi man de encaissé wu ma joxe joxe kii jë jëluma kii nu mu di avance waaye na ko Moodu bëgg te sentir ko jël jël jël ko téye. kon su ko Moodu bëggoon ba sentir ko ba jël ko téye. njaay njaay doon mu ko bu ma solee plee dem Saalum. waaw fi ma war a dem yëpp ma dem fa. waaw Moodu daan ko. moom Balla Gaye xam nga léeg-léeg nit. bu la njëkkee màgg gën laa xam ma ëpp lay pexe. waaw waaye da dem ba mujj gi da ko pexe yi da nga ko ciy tiim ci fukki yoon. kon fi mu ne su la déggee da ngeen tiim da ngaa tiim njaay njaay. xam nga làmb ji. dafa bëri lu ci xew loo xam ne baabu kat Aziz Ndiaye ndax yéen Aziz ndëndam meekera. ndënd ku ko dugal ci arène bi. waaw yow gis naa nga yoroom ciwul contre Boy Niang. kan moo découvrir am ndënd yóbbu ko ca arène ba. Mm-hmm. nga fi mu ko en direct Dakar live fi ma Dakar Actu bi may fay yëf yi yëpp yaa ngi taxaw. kon pexe làmb maa ngi ciy bëgg a yaatu. kon daal fi mu ne sa yaram li muy laaj. sa yaram man li ma sentir li nga defoon nag sama sama kal yooyee. waaw la ma dal seqoon ak kanji yi. kanji kanji booy waaw réew yëpp doon ñaari combat. waaw Modou ak booy ma kanji yi. léegi da ngaa bëgg Balla ak Modou. Ndiaye Ndiaye neex loolu neex na ci réew mi. Ah. xam-xam nga bëgg gis ak baatin waaw ne ah na ko Modou bëgg xam nga yëfi mënaguma cee sori feeg Modou bëggul ko nda wax ci lu ñëwagul day mel ni tasaare say wax. Mm-hmm. wala am loo bëgg. waaw waaye bu dee xam-xam. bu wér waaw baatin bu wér. waaw pexe yuy daan ba. waaw sëriñ si mu Seydi Aboubacar si xam na ko. Thierno Gueye nga fee de Thier ñëwaat na de retour de Thier. le retour de Thier yóbbu ñoo ma gën njëkk gane jamono waaye maa leen gën a xam-xam-xam. ah. njëkk a jamono ci ñii ma lay wax. waaw waaye baatin bu wér. maa leen ko gën a xam Babacar man baatin sama liggéey la man amewuma ñaari liggéey man baatin rek laa xam xaw ma leneen ah, loolu doy na waar de mhm. Aziz Ndiaye ak Baye ak sëñ Cissé en face Cheikh Diaw sama xarit ba Baye Ndiaye Baye waaw <laughs>